fan ci weeru mai atum 1962 maanaam bis na tey la woon ñuy euh, euh, mu amoon consécration euh, monseigneur Hyacinthe Thiandoum moom nag muy archevêque de Dakar ki ko fa tegoon foofu rek moom mooy monseigneur Jean-Marie Maury nekkoon nonce apostolique bu Dakar bokk na ci li fàttaliku tey ñu dem seetaan ku dellu siwaat Moujtaba Diallo bu ndakaaru ak Ndeye Diakha Ngom bu Touba ñaar fukki fan ci weeru mai atum 2017 eh, ci la ñu jëlee ay prix raw gàddu eh, ci tarib alxuraan kenn ki prix bu njëkk bi ki ci des ñetteelu prix eh, muy jongante boobu ñu amaloon ca Malaisie. ñaar fukki fan ci weeru mai atum 2021 ci wàllu yoon juróom-ñaari doomu aadama ñu tuumaaloon leen ci faatu Diego Maradona ci weeru novembre bi weesu nag ñooñee ñu tuumaaloon dañu doon wax ni dañoo faat ci li ñu teyul waaye jamono ji ñuy wax ak yéen nag boo moyul daanu tëdd juróom-ñetti atu kaso jàpp ñaar fukk ak juróom ndax yoon dafa jàpp ni ñooñee dañu faat ci li ñu tey ñaar fukki fan ci weeru mai atum 2015 ñuy fàttaliku euh, tukki nemmeeku bi roi Mohamed VI bu Maroc amaloon fii ci ndakaaru lu ko jiitu waajuram ba di roi Hassan II amaloon na fi ab tukki nemmeeku teewee woon sax nag daloo bu grande mosquée bu ndakaaru ci atub 1964 la woon moom mi di roi Mohamed VI bi mu ñëwee woon ñu ngi fàttaliku tamit julli àjjuma bi mu fi def mu yemoo woon ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2015 tey ñuy taxaw ci ñaar fukki fan ci weeru mai atum 1962 ak consécration bu monseigneur Hyacinthe Thiandoum archevêque bu ndakaaru monseigneur Jean-Marie Maury def ko nonce apostolique bu ndakaaru abbé Alphonse Biram Ndour curé bu paroisse Saint-Paul bu Grand-Yoff di delsiwaat euh, ci liggéey bi cardinal Hyacinthe Thiandoum def euh, ci dialogue islamo-chrétien. cardinal Hyacinthe Thiandoum mi nga xamante ne euh, nekkoon njiitu jàngu diocèse Ndakaaru ku ñu tuddee woon Jean Marie moom moo ñëwoon ci at boobu ngir euh, daal di ko euh, fal monseigneur mën na jàpp sax ya cardinal euh, Hyacinthe Thiandoum laale na lool ak weeru mai ndaxte bu ñu ko seetloo ci weeru mai le 24 mai 1976 la ñu ko tàbboon def ko cardinal di li nga xamante ni moom mooy kilifte gu gën a mag ci biir jàngu bi te Pape Paul VI tànnoon ko ci biir Afrique. mën ne ci fukki. fukki fan ak juróom-ñett la monseigneur cardinal Hyacinthe Thiandoum euh, wàcc liggéey euh, fële ca euh, tugal ñu daal di ko indi fii ci Sénégal daal di ko fi robe monseigneur Thiandoum nag dafa di woon koo xamante ni dafa soobu woon lool ci li ci dialogue islamo-chrétien. moom monseigneur Thiandoum mu ngi bàyyi ko ci mel ni njaboot boo xamante ni wax dëgg yàlla laale woon na lool ak diine l'islam ndaxte pa pam bi tuddoon François Fary Thiandoum mu ngi jëloon niki soxna Anna Ndiémi Sène bi nga xamante ne moo nekkoon doomu imam ba foofu ca jamono jooju ñu ngi fàttaliku ne ci bésu ba ñu koy tàbb di koy def cardinal président Senghor yónnee woon na fa délégation bu takku te ki ko jiite woon ak ah, jullit la woon ci diine l'islam la bokkoon ne kon Mamadou Sidé Dia ne lii nga xamante ni moom lañ ko takkal ni kii raaya du leneen loo xamante ni tiiteru Sénégal yëpp la muy kerceen muy waa l'islam muy kam mun ci doon di tiiter ci Afrique yëpp itamit looloo waral ci jamono jii ñuy dund war nañu xoolaat bu baax suñu njiit yu baax yooyu njiit yu yiw yooyu nga xamante ni yàlla mayoon na ko Sénégal ni ki cardinal Thiandoum te itamit di gën di topp seen tànk yi ngir roy bi nga xamante ne moo ñu war ñu mën koy eggali saa su nekk ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla gannaaw ba mu ko eggalee ca wetam ca aljana may ko mu jottali na yiw boobu ci teewaayam ci wetu yàlla yàlla na yàlla gën a lokk leer ci moom te may ko noppalu bu dul jeexi il faut se servir le plus possible de ce don de Dieu pour marquer la spécificité de notre pays. cardinal euh, Hyacinthe Thiandoum Fatkine dem ñu koy jaajëfal ci pàttaliku euh, euh, boobu Malick Thiandoum oui euh, cardinal Yassine Thiandoum déjà euh, mu nekk euh, ku nga xam ne dafa marqué. Mhm. l'église sénégalaise et même l'église africaine. Mhm. parce que bu ñu fàttalikoo rek ci 1962 moom moo nekk première nit bu ñuul bu nekk. Mhm. archevêque euh, fii ci Dakar mu remplacé woon. ki nga xam ne moo doon tubaab bi fi nekkoon di Lefebvre. nekk yi tamit ku nga xam ne nitu jàmm la woon. mais borom xam-xam la woon tamit ci ay jamono. parce que bëri ay contributions yu nga xam ne indi na la ko ci église bi fële ca Rome euh, ndax xam-xamam toujours dañ ko doon rafetlu di ko déglu mhm. donc euh, nit la bu nga xam ne vraiment marqué na époque am mhm. ci euh, boppu jàngu bi mhm. waaye tamit ci relation yi nga xam ni moom lañuy wax ci diggante dialogue islamo-chrétien daf ci dox jéego yu am solo donc mu nekkoon kilifa bu nga xam ne bi mu fi bi bi bi muy nekk déjà cardinal pratiquement boobu amoon na quarante et quelque ans hmm. donc mu nekk nit bu nga xam ni wax dëgg yàlla pendant trente huit ans hmm. nekk na ko euh, ci euh, boppu jàngu bi hmm. kenn mosu ko gis ci dara lu nga xam ne lu dul diine la donc diine chrétienne amal nañ ko njukkal rawatina Sénégal te ku nekk ñu ngi fàttaliku bi fi pape bi ñëwee yi tamit Jean Paul VI euh, mu bokkoon ci ñi nga xam ni ñoo ko teer woon donc moom nit ku baax la woon famille am am na ci ñu nga xam ne sax jullit nañu ba nekk imam loolu di wone rek diggante catholique ak chrétien hmm. cohabitation boobu hmm. nekk lu am cohésion sociale boobu hmm. daf ci mos a joué lu am solo Jean Paul II lu pape Jean Paul II moom moo fi ñëwoon te moom ci ñi ko teeru woon ci la bokk voilà monseigneur lu dul woon jàngu bi ak euh, jàmmi réew mi ñor ko woon Chérif euh, euh, mois de mai sax moom day mois boo xamante ni au delà de fait que ñuy def ko archevêque bu Ndakaaru ci la génnoon àdduna si vous rappelez en 2004 c'était le 18 mai moom cardinal Hyacinthe Thiandoum ni ngeen ko waxee également ci taxawaay bi nga xamante moo loolu taxaw ak responsabilité gi. parce que mm-hmm. bokk na ci royukaay fii ci Sénégal. Mm-hmm. ndax euh, tolloon foo xamante surtout boobu ñu ngi doog a am indépendance dëkk bi et cetera boo xooloon même sax bokkoon na ci ñoo ni bu dëgg jotee aussi daf ko doon wax surtout le président Léopold Sédar Senghor. moom mi fi nekkoon donc euh, ndax euh, taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom la mm-hmm. def mooy ñaanal yàlla mu yokk leeram. mu nekk ba léegi rek di éclairer ñi nga xamante kon mooy sénégalais yi ndax fu ñu waxee taxawaay kilifa diine surtout wàllu régulation sociale. moom dañ ko ciy ndax taxawaay bu am solo bi mu fi doon mm-hmm. euh, ah. taxawaay bu am solo ak monseigneur Théodore Adrien Sarr defoon témoignage bu <coughs> bu mag a mag ci moom. Mm-hmm. ngeen gis aussi collège bu mag bi ñu ko tuddee fii ci Grand F. muy collège Yassine euh, mm-hmm. la te je pense que Yassine bi ñu nekkee gune euh, dañ ko doon. doon xoolee comme modèle jàppe ko comme référence donte bokkuñu woon sax euh, diine je mm. pense que loolu moo doon euh, force su Sénégal mm. euh, dafa nekk réew moo xamee ni da ngay gis ay yoo xamee ni dañoo nekk ci diine chrétienne di admirer ay personnalité yoo xamee ni mm. ay ci ay jullit lañu ay ay kilifa lañu ay ay xalif lañu mm-hmm. ci tamit moo am fi tamit ngay gis ay doomu jullit yoo xamee ni dañoo nawoon góor gi vraiment nekkoon doon dégager benn personnalité bu am solo. Euh, di dund lu di dund tamit di dox ci lu am solo. Mhm. ci euh, cohabitation. entre musulmans et catholiques euh, et je pense que bokk na ci nga xam ni daal ñoo gën a cimenté. Mhm. dialogue islamo-chrétien fii ci Sénégal te di loolu lu ñu koy nawee la ba faw mhm. et fële dañ ko jox cër mooy le Vatican. dafa am cër bu mag bu nga xam ne jox nañ ko ko. ba Jean Paul II am na livre bu mu bu mu bind bu nga xam ne. Mm. Euh, mi ngi ci rendre hommage euh, monseigneur. monseigneur Yacine Thiam Ibo. waaw soxna Fati euh, man fi may taxaw mooy rapport bi mu amoon ak ndaw yi par mm. exemple. parce que à chaque année dañ ko doon seetlu bu pèlerinage marial amoon. Mm. dañu daan gis message yi mu ci doon profité di ko jàllale également taxawaay bi mu daan am. ngir sàkku ci kilifa yi ñu gën a taxaw ndaw yi. Mhm. donc euh, loolu yenn saa yi da ngay seetlu sax ñuy def comparaison moom ak euh, xalif général euh, Serigne Saliou Mbacké. Mhm. ku ci nekk dafa am pàcc boo xamante ne jaglewoon nga ko tout tànk yi. Mhm. moom à chaque fois di doon jóg di leen waxal doon koo xamante ne daal dafa yore seen plaidoyer. ngir lépp lu aju ci wallu yar ak li nga xamante ne formation jàppale leen tamit ci seen dund. da si doon dox bu baax baax soxna Faty muy lu am solo et puis li euh, ñu wax rek moom mooy firndeel ne Sénégal benn bopp la euh, euh, dañoo mës a dund ci cohésion bu am solo cohabitation boobu moo ñu may li ñu am tey jile donc moo sa monseigneur ñu koy ñaanal di ñaanal waa jàngu bi yëpp foo leen mën a nekk yal na boroom bi gën leen dëgëral ba li ngeen bëgg ci seen liggéey ngeen àgg fa ñu Apia da Silva qui a perdu sa maman voilà soxlan koy jëbal suñu borom incha <laughs> uh-huh. allah messe bi dana nekk ci fi la nga xamante ni mooy martyr de l'Ouganda. bu ñu fa jógee ñu dem fële ca cimetière yi. Mhm. seen voilà euh, suñu yaay jooju ëllëg lañ ko fas yéene jébbal boromam et puis ñuy mastawaat Pierre da Silva réalisateur nekk suñu collègue fii ci télévision Futur Média 7h jot na ba tegee li simili waxtu ñëw ci xibaar yi ci gàttal lay doon Cheikh Tidiane Diawo lañ ci àndal.